lu baax rek lay am sëñ Saal baax na bëgg na mbokk yaru na fonk na njaboot te loolu moom kenn du ko def di dellu gannaaw ñu ngi koy ñaana lu mu mën ren yal na ko mën déwén di ñaan ci barke Sëriñ Saliou yàlla bàyyi ko ak taalibe mi baax yi mu àndal di ko def ñu ngi sant bu baax na ndam lii mu am tey ànd kook yow ngay soxnaam jàppale ko ci liggéey bi ndax yombul nekk borom këru Sëriñ Saal ndigal cuur parce que grade chef la ci looy doxee ndax liggéey bi yomboon na. non yombul yombul liggéey moom boo ci duggee bëgg lu baax du yomb benn liggéey yombul benn liggéey yombul waaye ñi ngi santaat Serigne Béthio bu baax nag ñi ngi sant bu baax ndax li mu ci bëggoon yàlla defal na ko ko ñi ngi sant yàlla bu baax. kan mooy sëñ Saliou Ndigal Thioune. sëñ Saliou Ndigal Thioune mooy sëñ Saliou taawu Cheikh Béthio baax bëgg njaboot sama xarit bi. waaw ah, tey damaa gis tey bi dagg yi dikkee sëñ Saliou Ndigal Thioune kanam gi souriant bëgg ndax dafa bëgg ndam la. ma gis ne tey am na ndam fa Serigne Béthio tëdd bëgg na ci Serigne Saliou Ndigal. Serigne Béthio bëgg na ci moom ñaanal na ko avant moo def euh, secret bi Serigne Béthio bëgg na ko ñaanal na ko te lii moom at mu ñëw rek day dàq nag. at mu ñëw nii lay mele parce que mérité na ko te mérité na it lu ko raw waaw ñi ngi ñaan rek ci barke Serigne Béthio mu yàgg ko ànd ak ay taalibeem ànd ko ak ay mbokkam. ànd ko yéen ñi nga xam ni fu mu jëm nag fu mu egg rek gannaaw yàlla yéen a ko fa eggale waaw mi ñaan si digg ak sëriñ bi suñu borom gën la ca may ndam ndax da nga koo jàppale taxaw ko ndax nopp amul ku béer te nag doorte doorte dañuy liggéey waaye ay murit lañu ay taalibi sëriñ Saliou nga ñaanal ba nag sëriñ Saliou ndigal ci mu gudd fan wax guddee fa saw ca tàkku di la sëriñ Saliou dama koy ñaanal chaque jour sëriñ Saliou muy lii ak euh, leneen sëriñ Saliou dama koy dama ko naan yal na nga sutee say maas ni gëleem sutee bëy amiin barke sëñ Tuubaa su ma ko waxee mun ma bi lay yaa rëy ay wax waaye kuy gis rek war ngaa xam dama koy ñaanal na gudd fan wér gu yaram maa ngi koy ñaanal lépp daal lépp lu rek yal na ci yàlla defal ndam amiin barke sëñ Tuubaa barke sëñ Tuubaa barke borom màggal gi te ñu yàgg ànd nag gën a soxorloo ni asamaan ak suuf waaw moo koy gën di bëgg rek ñu dégg naa ci yow ñëpp a bëgg a ci yow da ngeen koy laaj bu li bu at mi del see soxna si bu dàq nag yi delsee euh, xel dana dem ci seex Béthio Thioune bu ngeen tollee fii xel dem ci Serigne Béthio euh, yaay booy ma bu at mi delsee xel dina dem ci sëriñ Béthio ndax lii yéen ak moom yéen a ko daan ànd bu ngeen di fàttaliku Cheikh Béthio ci bis bi lu ngeen di yëg. Euh, Cheikh bi nag moom bu ma waxee ci moom rek du egg. waaw cheikh bi moom mënuma wax ci moom barke Serigne Saalay. Oh. Cheikh Béthio mel noonu ci ñoom. waaw loolu laa xam euh, Fadel moo tax ma dugal question bi ñoom noonu lan mel ci Serigne Béthio amuñu sago ci Serigne Béthio xam na ne lépp mooma nag loolu lan xam. nga nga jooy waaw. li ci wax du wax ci Serigne Béthio. ay ca kontaan mi ngi noonu. ku ci tudd Serigne Béthio rek daal di daanu tudd Serigne Béthio daal di daanu euh, ñoom li ma jaaxal amuñu sago ci Serigne Béthio waaw waaw parce baax na ñaari baat soxna maa lu tax ñu tudd Serigne Béthio rek nga tur xew. am na ci ndam. kontaan yow la préparé woon na ko. moo tax waaye kenn nag du jàmbaaj ji Serigne Saliou sama sàngawaat borom njurul borom njàppandal borom umul xuraa borom juróom ñaari daara ca ngaabu sagub Serigne Béthio Thioune sagub Cheikh Amar ah sama sang bi nga xam ne kenn du moom ci man Serigne Saliou Thioune yàlla Serigne Saliou euh, Mbacké yàlla yàlla dolli eleeram yàlla sanc bàkkam dàq nanu nag yag ginnaaw bi gëlëm yee maa ne gëlëm a gura plan bi nag nga jëlëm a gëlëm yee ne la fële nga xam ni baax am na solo loolu waaye demit bàyyi ku baax dërëpp ko solo boo demee bàyyi ku baax loo rafet mu ñagal la ko gerte gaa ngi nii lii lépp ci jaamu yàlla yi la jëm danañu samp ay waañ di ko jox jaamu yàlla yi danañu xool ñi nga xam seen loxo jot seen ginnaaw ñu leen di jox ay ndawal di leen jox ay gàtt di leen jox ay ceeb ak lii mooy jaamu yàlla sëñ Tuubaa lii la wootee kaay leen santale ma ci sunu borom gënaar ba ci gëlëm jërëjëf kaay ñaari baat rek ndax tey da ngeen am ndam waaw amati nañ ndam da ngeen am ndam waaye amati ngeen ndam barke Serigne Saliou Mbacke ndax da ngeen a dàq nag dugg biir Touba ma gis ci nit ñi di tuur xewal ndax mbég barke Serigne Touba tànki Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek lam barki Serigne Touba. waaye ki nga xam ne moom la leen suñu borom booleel muy Serigne Béthio mooy kan. Serigne Béthio ah. daa ngi dawloo sama yaram bi kuy Serigne Béthio ndax Serigne Béthio daa yéem ñëpp. sëriñ Béthio billaahi kenn xamul kenn kenn xamul doon. barki Serigne Touba Mbacke. te tey bu dee gàcceel démbam kan mooy Serigne Béthio. santaat nañ ko. lim ñu defal dafa rëy ndax ñun ñii bañee ndaw lañ jébbalu ci moom mu defar ñu teral taxawuñu aarñu ñu ñuy durus xasida yi di ko jàng di ko kuréel loolu bu ñu ko amee ba man ko sëriñ Béthio tax mu bàyyi taaw bu baax sëriñ Sall ndigal cuun kan mooy sëriñ Sall ndigal kenn du moom jàmbaar ji nga xam ne moo doon du baayam doon baayam barke sëriñ Touba Mbacke bu sooxe woon rek yëfi du dex barke sëriñ Touba mais daa ñëw gën a yaatal yëfi yëfi gën a yaatu boo gisee nag yi ni mu yokkee ren ak gileem yi ah ñu gis yenn ci nag yi ñëw ba bunt kër sëriñ Sall nag yooyu siisu ni duñu jóg mel ne kon yooyu nag yi sëriñ Sall la nag yi ami lañ nag yooyu dañoo am

da ngay dàq nag yow da ngay dàq nag yow pour Baye Sarr da ngay dàq nag yow da ngay dàq nag yow Malick da ngay dàq nag yow rek sëriñ bi bég na sëriñ Saliou ndigal cuut am na ndam la ko mbay sëriñ Mbay Jaxate waxoon mais am kilifaay di am solo soo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéruwul yomb ko mën sëriñ Saliou ndigal cuut lu mu am ci yoon wi gis gis na ko nga yaa ngi jolli waaye Malick li ma la wax naan la Malick li ma naan la li ma naan la kenn sëriñ ba coolu coolu xadal gélam yëg Malick may ma ci ginnaaw Malick dàq na lu gélam yëg Malick dàq na lu gélam yëg Malick dàq na lu gélam yëg Malick jëlama sëriñ bi mbégte gi ba am Malick gélam yi du Malick lii du lu nu jàkkeen du ko jeex de Malick lu nu jàkkeen du ko jeex Malick lu nu jàq lu nu jàkk dee su ko jeex bi am na ndam. ñaari mais dafa mel ni sëriñ bi daana am ndam waaye amati waaw loolu man ni ma ko gisee mooy tànk kanami sëñ Tuubaa laa laa gis ci gis da ngay yokku saa baax am na solo lool waaye bàyyi ku baax it ko am solo soo bàyyee ku baax loo rafet la mu ñagal la ko sëriñ Béthio jot na ci saayir waaye bàyyi na tawam bi sëriñ Saliou ndigal cuun ba lépp lu sëriñ baax la woon rek ñoom jag nañ ko ba daa yokku waaye baa ñekkool noo gisee jàngat bi nga xam tey moom am jannatu ak ndam li sëriñ Saliou cuun mi am xam nga dañu fee waxoon daan ni yàggul dara ni naw la dafa foor bi naan naw la dafa foor nag ñu mel ni yee taxoon nag mu xam ko nag hmm. ku xam na ni sëriñ Cheikh Béthio hmm. taawam bu baax bi naw leema hmm. mu dem bàyyi liggéey bi waaye mu fexe fa tabaarakallaa ba liggéey bi at mu jot mu yokk loolu la waral loolu nag muy daal sédd baat booba sëriñ Saliou bi ñu départ léegi daral ga ñu ko tax a buntu ko sëñ Karim fa tabaarakallaa naalu giléem yi di génn naalu naaru nag yi di génn looyi di génn sama yaram dafa daw ñu def tuu tax a buntu ko sëriñ Saliou giléem yi ñëw ci buntu kër gi yées dindi ñu dem sama yaram dafa daal di daw ca saasa ma xam ni daal fa tabaarakallaahu daal ku li baatin amul daal da ngaa xamul li ngay wax. Mm-hmm. waaye gàcce ngalaama nag jàmbaari jàmbaar taalibe jee taxaw ne Njimoor Isaar mu Cheikh Béthio jàmbaar jee nga xam ne fa tabaarak daa toogoon ci wetu sëriñ bi di xaari ndigal di déglu ay ndigal rek te lu mu digle kenn mënu ko ci kon tabaarkàlla li ci des dama koy bàyyi ak El Hadj Modou wax taxoon